jàkkoor waat ak comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmbu rek mbokk yi ni leen ko toppal rawatina nag mbokk yi jëmm ji nga xam ne moom la ñu seet si dafay nit koo xam te ni nit ku yéeme la sunu borom may ko wàllu xam-xam lool may ko ci wàllu seet ak li saxaar nee naa la bari na ci maara yi nga xam ne dañuy faral di génn ci internet waaye maara bi bokku ci mbokk yi fa ñu jógee sori na fa ñu déparé sori na mu nekk jëmm joo xam ni jëmm ju doy la nekk ci diwaan boo xam ni mbokk yi nee naa leen ku jëflante ak moom di nga xam ne ne ndaanaan la mu nekk nit koo xam te ni suñu borom daf ko may ci wàllu xam-xam may ko ci wàllu seet may ko ci wàllu listaxaar may ko ci wàllu ñaan yàlla mu dono muy ndono nag ndax li waaye donn mu dëgër papaam daan ko def nekk ci sëriñ bu mag a mag a mag su ma leen tudd leen tur wi di ngeen ko xam waaye mbokk yi lu waaye donn mu dëgër sëriñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar waaw kay euh, mbokk mi ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla nangu ziyaar te boole ñu yool bi mm. ci barke yonent bi salallaahu alayhi wa sallam mm-hmm. tey ñu déplacé wu lii ngay def di ndono sa ab waajur daan ko def tey nga dem ba jël di ko def muy ndono mm-hmm. euh, waa kay bala ñoo tontu ci loolu ñu nuyu mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel Euh, ak fu ñu mën a nekk di ñaan yàlla kàddu gi nga xam ne ñi ngi koy yëkkati yàlla def mu fekk leen si jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it ci barke Cheikhul Khadim ci barke xasida yi euh, comme li nga wax euh, li ñuy def ni ginnaaw ba ñu ko donnee ndono li nag yaatu na lim nga ci benn sànq beneen bi ñu ciy yokk rek mooy ndono li nga xamante ni jëlee nañ ko tamit ci suñu turandoo maam Omar Saw nga xamante ni ñi ko xam bokkoon ca mag ña xam nañ ne. bari na lu ko yàlla dénkoon euh, ci wàllu xam-xam ci lu nëbbu ak lu feeñ euh, loolu nag du ñu ne jël nañ lépp waaye am na lu ñu ci yàlla dénk loo xamante ni xam nañ ne sax du suñu man-man waaye dafa fekk ni loo doon mu dëgër waaw loolu dañu koy sante yàlla bu baax a baax. ñu ñëw ci wàllu seet ak li saxaar seet ak li saxaar dégg naa ne képp koo xam ni ñaankat ka da ngay seet ci kurus da ngay seet ci ramli da ngay seet ci pitaaw da ngay seet ci kayit ak ci lu ne wala ci suuf ci wàllu seet. waaw xam nga seet ndeysaar <laughs> dafa nekk loo xam ne léegi dafa xew waaye dafa bëri ay façon euh, ñun nag ci suñu côté ñi yàlla bëri na lum ñu ci dénk bunt yu ñu ko mën a jaaree muy seet ci ndox euh, seet ci suuf euh, seet ci kurus yooyu yëpp dañu koy def am na sax yeneen yoo xamante ni doon nañ ko def bi ñu gën gënee nekk xale nga xam ne ci lu ñu njëkk a jaar ci wàllu seet yooyu léegi sax daanaka bëreetul lu ñu koy def am na yeneen ak yeneen yu dul yooyu waaw mais li ñuy xool ci suuf bari na lool li nga xamante ni it dañ koy euh, xool ci kurus tamit bari na lool surtout lu moom euh, dafa nekk loo xamante ni daanaka boo ko mënee euh, ci seet dëgg-dëgg xaw tuut sax nga mën a wax turu nit ki ne ko diw ak diw sa landañ lañ diw ak diw sa lan diw mi ak diw mi sa nangam lañu te du ko dindi ci kaw nag nga man ko waaw loolu lu lu lu mat a leeral la waaw bu dee ci kurus tamit kasaale ko lu mu la wax du dañ bari nañ ci ay bunt daal bunt yi nga xamante ni mosuñ ko ci jaaree nag mooy pettaaw moom mosuñ ko jëfandikoo waaw yooyu euh, néew bunt ci seet yoo xamante ni jaaruñ ci wala ci listixaar waaw seetu ndox bi ndox bi nag secret yi xam naa diggante topp naa la waaye seetu ndox xam ne boobu ngay def nga xam ne ñu ci bari bari diaspora beeg àdduna bi yëpp di la ci woo seetu ndox waaw seetu ndox bi de dafa nekk loo xamante ni euh, du seetu xale waaw du du du seetu xale ndax dafa yéeme euh, am na ci loo mun naa ko leeral waaye am na ci loo xam ne duma ko mën a leeral ndax mbirum secret la euh, mbirum baatin la baatin nag bu xasee feeñ nekkatul baatin waaye mbir la moo xamante ni il faut nga am rawxaan euh, boo xamante ni da ngay da nangul nga xamante ni day ñëw di wax ak yow ci ndox mi di la wax lim lay wax yow loolu noonu mooy li nga xamante ni moom moo nekk ci nit ki nga xamante ni mooy ñëw ci yow di seetlu ay mbiram waaw te lu mu la wax euh, dara du ko dindi même bu ne la woon suba lay faatu sax euh, kooku noonu bu amee bor bu bañ koo yóbbaale yowmal xiyaam na ko fay ñu ñëwaat ci sëñ bi ci li nga xam ne moom nga yéeme ci rab ci wàllu rab ci jigéen ji nga xam ne dafay sëy ak borom këram toog lu yàgg te woo am doom ci jigéen ji nga xam ne daa jànq lu yàgg te saa bu ko nit ci seet see bëgg jëkkër mbaa bugg koo def soxna rab bi mel ni lu ko dàq buñ ko gisee du ñëwaat ci wàllu rab. waaw xam nga rab moom euh, sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax mhm. euh, ndax xam nga maanaam euh, mbirum faj mhm. dafa yaatu mhm. lool sax waaye rab dafa nekk loo xamante ni ñu bëri ñu ciy wax waaye am na luñ ci desee xam am na nag ñoo xamante ni lañ kay wax lu am la waaye problème bi fi mu nekk mooy faj ko mm-hmm. waaw xam rab waaw xam rab ak ak ak li muy yàq man na yomb ci benn côté mais faj bi fa la problème bi ne mm-hmm. am na ñoo dañ koy faj mais am na ñoo xamante ni ñu ci bëri duñu ko faj dañu koy làq waaw dañu koy nëbbu waaw li ngay nëbbu nag mën nga toog quelque temps doo ko gis mais boo demee ba mu yàgg dafay ñëwaat mm-hmm. kon loolu fajoo ko mais da nga koo làq loolu mooy mooy jafe-jafe bi ci nekk rab nag dafa doon loo xamante ni euh, mbindeefu suñu borom lañ dafa yaatu nag moom rab euh, ñaare bu nekkee ci parce que ñoom dañoo mën a gudd fan ñoo ëpp nit aw fan mën nañoo dund ay juróomi téeméeri at wala junni at wala lu ko jege te nit xam nga pour mu dund téeméeri at rek problème la moo tax mën nañ la topp ci bi nga nekkee tout tànk nga xamante ni masooragoo bi ngay am 7 ans bi ngay am 8 ans wala côté yooyu ñu topp la ci ba nga nekk mag euh, bu dee jigéen man na ko yàqal lu bari ci côté sëyam wala côté njabootam pour mu am doom wala côté boroom këram nga xamante ni maanaam say tas say tas euh, te exact moom du xam sax lan mooy tas ay sëyam euh, bu dee ci góor tamit euh, noonu du ñu mën a toog ci birab birab bu ñu am ba am yaakaar ne fii baax na war nañ faa mën a yàgg rek lu ndaw moo leen fay jëlee ñu dem waaw kay mi ngoog loolu rab la waaw faru rab dana ko def euh, euh, ci jigéen ndaw rab dana ko def ci góor waaw loolu loolu loolu dafa dafa dafa am dafa am bëri na ku lay wax nan la dañ laa liggéey euh, fekk liggéey nekkul ci yow mais rab moo nekk ci yow daanaka li li li li rab di yàq xaw tut sax mu raw li nga xamante ni moom la liggéey bi ñu la def di yàq ci ci ci ay gàllankoor dafa dafay defaral nit rab buy defaral nit amul rawxaan moo am ci defaral nit Euh, nit ku nekk euh, yàlla da ko booleek ay rawxaan say rawxaan nag duñu la yàqal dañ lay defaral doon dikkee ne yenn saay say rawxaan soxla sarax euh, mais rab du defaral nit rab day ñëw dugg ci yow di la yàqal bu dee rab faru rab noonu lay def bu dee ndawus rab noonu lay def bokkul nag ak rab yi nga xamante ni moom daf la dugg di la daanuloo di la sayloo wala nangam nangam nga xam ne loolu moom beneen xeet la beneen beneen beneen pàcc la ci wàllu woowu sëriñ bi ñu ñëwaat ci yaakaar naa ne ñu ne ci diaspora bi ñëpp xam nañ la ci wàllu kayit dugalante ak génnelante des fois ki ne ci Europe bi bëgg dugal kayit saa bu dépôt ñu rejeté ko des fois ki ne senegal nekk ndaw dajale xaalisam ay millions saa bu demee di lijjanti kayit pour bëgg tukki ñu rejeté ko te loolu dégg naa ne képp kuy ñaan yaa ci sut ndax ndona la. wallaay ndeysaan euh, sant nañ ci yàlla moom ci côté boobu bu baax a baax a baax euh, ndax lu ne fàng Eh, te bëri na ay mbokk yoo xamante ni tey ñu ngi ci diaspora bi. Mm. ay mbokk yoo xamante ni eh, yàlla dogal na am na ci ñoo xamante ni jot nañu jaar ci li nga xamante ni mooy suñu loxo. Mm-hmm. Eh, ci côté boobu nga xamante ni dem nañu ba am ci cant bu wér a wér xëy na bu ñu gisee vidéo bi ñoom dinañ ci doy confirmation. Mm. ci wàllu papier loolu bu dee ki nga xamante ni tey dafa sori. soxlawul ñu koy jox dara lu muy sangoo wala dara kurus donc suñ ko ko jàppalee ñu xam turam ak turu yaayam euh, buñ ko adatee euh, am na benn lim boo xam ne moom lañ koy booleel euh, buñ ko booleel lim boobu ñu adat ko dina am benn tur bu mu jàpp ci 99 tur suñu borom yi tur boobu muy jàpp ci 99 meloy suñu borom yi tur boobu mooy bunt bi nga xamante ni ci lañ koy jaaree ci wàllu sikkar ba mën a faj li nga xamante ni moo di aajoom ci wàllu papier ak sarax ya nga xamante ne xëy na moo ca feeñ ñu war koo génnee mm-hmm. bu ko defee euh, bu dee koo xamante ni dafa déposé woon papier yi def temps bu yàgg te génnul mu jege at wala ay weer wala at ak nangam te mënul sotti euh, si kuwul ne bala ñoo nopp ci li nga xamante ni moom lañ koy defal ci wàllu kurus moom loolu day féete boor dafay lijjantiku mm-hmm. waaw parce que am na ñoo xamante ni ñu ngi lijjanti kayit wala ñu déposé wala ñuy ñaan visa wala dara affaire yi mel ni lu jël temps maanaam mënul fexe ba ba buuse fa mu nekk waaw loolu nag des fois tamit rab dana koy def ci nit muy doon waxtaane sax des fois rab bu nekkee ci yow faru rab wala ndaw rab boo ko fajuwul dana tax yow lépp looy wut euh, départ bi dafay yomb mais boo demee ba ci biir da ngay gis ne daal affaire dafay am dëgër dëgër dëgër dëgër ba yow da ngay mujjee sax bëgg bëgg a bëgg a bëgg a gedd wala euh, sa sa yaakaar duutu ci nekk bu dee ci jigéen mën na ko tere am doom mën na ko tere tamit buy sëy euh, mu yëg bànneex muy rab buñ do nga xamante ne moom lañ doon waxtaanee léegi mm-hmm. waaw kay mais loolu lépp incha allah euh, balañ cee soobu nag day fekk ñu xool ko ba noppi ndax ñun duñu dugg ci loo xam ne seetuñu ko mm-hmm. euh, bu ñu ko xoolee ba gis na lii buñ ci duggee dina am ndam mm-hmm. ñu wax la ko buñ ko xoolee gis na lii buñ ci duggee du ñu ci am ndam du ñu la wax ne la lii ta nekk ndax mënul nekk moom yàlla rek moo ko jagoo moo ko sañ waaye danañ la wax ne la te ñun mënuñu ci dara xam nga mënuma ci dara moo gën kenn mënu ci dara waaw mm-hmm. kay mm-hmm. sëñ bi ma ñëw ma ñëwaat ci nit nit ki nga xam ne dafa tëju mm-hmm. lu mu laal rek mu dëgër lool ñii naan daa umoog daa nangam ci nit ki nga xam ne dafa tëju yaramam tëju ay mbiram tëju wallaay ndeysaan lu bari lool léegi euh, li koy waral nag bari na waaye dama la tuddal ñett muy tëju ci boppam euh, tëju ci boppam rab dana ko def rab dina tëj nit euh, cat aussi dina tëj nit ndax cat tooke la mhm. catal làmmiñ jàpp catal bët euh, beneen bu ci topp liggéey aussi dina tëj nit nit dana tëju fekk dañ ko liggéey dëpp wërsëg bi mhm. muy xëy di dem ak ñëw mais du mën a am dara mhm. lépp lu muy topp ba jub ko loola wëlbati ko wan ko ginnaaw loolu dafay am mais loolu su amee ñett yi ma la wax ni bokk na ci li nga xamante ni ñoo koy waral muy rab cat ak li nga xamante ni moo di def-def bari na kuy dem di ñëw fekk ne liggéey lañ ko def ama am na ñoo xamante ni bu dee liggéey dañ koy liggéey def ko ci butéel dëpp butéel bi am na ñoo xam ne dañ leen koy suulal ci seen buntu néeg am na ñoo xam ne dañ leen koy suulal ci seen bérébu liggéeyukaay am na ñoo xamante ni dañu koy yóbbu géej suul ko fa am na ñoo xamante ni feneen lañ koy suul mais lu ci mën a am su boobaa noonu butéel bi dëppoo yow noonu lay say mbir di dëppoo su boobaa nag faawu nga tojtal liggéey bi nekk ci yow pour doog a mën a am li nga xamante ni moom nga bëgg ci wàllu wërsëg ku la wax tamit wax ne secret bi moom yaakaar naa ne su may wax sax da ngeen jàpp ne lii la waaye la ca maam la dama ne la ca la ca maam surtout koy donn waaye tamit loo waaye donnat ko donnat ko say waajur yaakaar naa ne loo xam la loo miin la muy jaaro bi nga xam ne moom ngay joxe secret bi mu jaaro bu doy waar jaaro ubbeeku jaaro wërsëg jaaro joo xam ne di ba boo ko takkee reega sëñ bi muy muy waar jaaro bi waaw wallaay ndeysaan xam nga jaaro bi ndeysaan dafa bëri euh, lu ci laxasu Euh, ñu bëri dañ may woo ñi nga xamante ni ay commerçant lañ wala ñu yor place wala ñi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi eh, ba ci ñi nekk ci biir réew mi ñu ci bëri dañ koy yittewoo am na ci ñoo xam ne ndeysaan dañ may woo ne ma diw moo ñu boole euh, euh, ci jaaro bi laa bëggoon jaaro bi nag dafa am ñetti façon man sama jaaro dafa am ñetti façon loolu lu mat di leeral la parce que daf ci am boo xamante ni muslaay la Euh, day fànq cat ba pare te muslaa la da lay aar ci ku lay liggéey wala ay yëfu saytaane njëkteef nitu guddi mm-hmm. yooyu yëpp daf la ci aar mm-hmm. Euh, beneen bi ci topp muy ñaareelu jaaro bi boobu jaaro la boo xamante ni euh, wàllu daraja lay dox maanaam foo nekk da ngay am cër am gëdd bu dee da nga ne ci bérébu liggéeyukaay da ngay gis ne yow lañ fay gën a jox cër euh, bu dee da nga nekk ci koñ da ngay gis ne dañ la fay gën a jox cër même sa kër dañ la gën a jox cër bu dee danga nga da nga nekk ci benn mbir ak foo mën a nekk da ngay gis ne ak ñoo fa mën a nekkal cër biñ voilà cër bañ la fay jox duñ ko kilifteef mi ngoog ca lay dox jërëjëf ci ci ci baat boobu léegi nag boobu nag joteewul dara ak xaalis man mhm. nga joteewul dara ak xaalis nga bañ a yor xaalis mais da lay jox daraja ak cër euh, beneen bi ci topp booy lijjanti ay papier ay kayit mhm. mu dëgër mhm. da koy yombal bu nekkee ci yow moom bépp papier boo xam ne mu ngi ci sa kanam nga di ko lijjanti wala concours booy def wala examen booy def euh, jàppal na da nga am ci coobari suñu borom incha allah loolu baat ak tontu la euh, ñetteelu jaaro bi mooy jaaro bi nga xamante ne nag bayre la bayre góor bayre ji boole koog di ñoddi alal day ñoddi am am moom wërsëg rek lay xëcc bu nekkee ci yow da ngay ngay yëg ne sa am-am moom macha allah mi ngi mi ngi yomb ci yow. te mi ngi gën a bari. beneen bu ci topp dafa ànd ak bayre nag. waaw dafa ànd ak bayre bayre góor. bayre jigéen bu ko góor yore góor ñi dañ koy jox bopp jigéen ñi jox ko bopp. bu ko jigéen yoree it jigéen ñi dañ koy jox bopp euh, góor ñi jox ko bopp damay wax ne euh, euh, manante amul. yaram bu neex rek moo fi nekk. waaw te gis nga jafe-jafe mi ngi tàmbalee ci nga tëju. wala nga soof nit ñi. nit da war a fexe. di neex nit ñi waaw boo neexee nit ñi rek da ko dalay yomb waaw kay ci xale bi nga xam ne ci li ko yaayam juree ci li koy aar fasu xale yi xam naa nag bari na ci ñoo xam te di yu bari moom la ñu xëccoo ci yow buy fasu xale bi maam xale bi bu juddoo rek fas googu bu ñëwee ci yow ba nga defal ko fas googu noonu ci diir bu muy amee fukki at ak juróom garanté du accidenté du nitu guddi du tiit guddi ci fas googu waaw xam nga fas gi te doy waar. wallaay ndeysaan xam nga fas gi dañ ko doon. Euh, fas bi. Euh, fas gi boo nekkee nit. yàlla dogal nga dem ba am tu tànk boo nekkee jigéen laa bëgg a wax. Euh, wala nga nekk sax góor. yàlla may la doom. nga may la tu tànk. tu tànk dañ koy aar mënut a aar boppam. gannaaw yàlla. yàlla mooy aar mais nit ki mooy sabablu. parce que yàlla du def dara. fu fu fu fu ndey mbili gi jiimul jéemul dara. ko ne xam na ne yàlla moo yor wërsëg. Mm-hmm. waaye boo tëddee sa biir nekk. bañ a dem liggéey yi wërsëg goo mën a di nga ko am waaw léegi fas bi moom bu nekkee ci xale bi euh, moom amul fekk fekk fas baa ngi ci ndiggam moom mi ngi ci kaaraange maanaam luy ni euh, luy luy nuru njëkteef wala luy nuru tiit guddi wala luy nuru jaaxle wala luy nuru euh, fit bi di def nii waaw wala feeñal mi mi ngoog nag buy feeñal ak yëpp fas gi dafay nekk loo xamante ni kaaraange lay doon ci moom ba pare da koy dimbale ci loolu noonu ni mu ko waroon a yëgee euh, du ni ko yëgee euh, nga bàyyi ci xel loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la xam nga des fois nit yor doom euh, xale bi dem ba ci biir muy tiit maanaam man de sama doom ji sëñ bi fan yi dafay tiit wala fan yaram bi dafay tànk rek ça fait deux semaines a ngi nii yaram bi day tàng wala bopp bi day metti wala nangam wala nangam yooyu day at day day day day day arrivé xale mhm. euh, tout tànk mhm. euh, léegi nag euh, ba fas boobu noonu bu nekkee ci ndiggam mhm. day dox digganteem ak xat-xat yooyu noonu wala jafe-jafe yooyu noonu nga xam ne mën na ko song ci côté yëpp nag waaw moom fekk fas baa ngi ci ndiggam may fas bi nag dafa yomba dem waaw dafa waaw waaw dafa yomba dem moom moom boo ko takkalee xale bi te takk bi dëgërul wala nga di ko tekkee ka tekkiwaat boo moytuwul léegi nga ñàkk ko waaw ndax day ñibbi moom waaw mais boo ko respecté rek nga fonk ko takk ko takk bu dëgër ci ci ci ci ci xale bi euh, nga fixé ko fa nga xamante ni moom buy sangoog boo koy sang ak lépp loo koy mën di def doo ko dindi euh, xale bi moom mi ngi ci kaaraange bu soobee suñu borom ju mat sëkk nag ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo di actualité yaakaar naa ne ku la wax xam ne ku doy waar nga ci wàllu làmb ak seet ñu jëm ci dimanche le 30 ci diggante Ama Balde ak Gris Bordeaux waaye Ada Fass ak Gouye kii Liss Ndiago ak Zos mu nekk affiche yu doy waar nga nekk nit koo xam di nag borom course ga te nga ba guddi am la ci suñu borom nga doy waar lool ci sëñ bi. wallaay ndeysaan xam nga yow am na lu ma la ci lu ma la ci déy avant émission bi. <laughs> waaye junjoo Sénégalais xam nga euh, diggante euh, amant Euh, ak euh, ki nga xamante ni moo di euh, Gris Bordeaux xam nga man làmb sax baaxoowuma du ma ci wax yow xam nga ci dara daanaka ñi nga xamante ni jege nañ ma rek laa ciy waxal ci suuf ma ne leen nii ak nii ay la ma <laughs> lim ma dee ay ma dee ci làmb ji wallaay xam nga boo gisee du ciy nangu di wax ci kaw mhm. il ma leeral foofu li tax mooy baatin kenn du ko foowee mhm. yàlla bu lay mhm. la wan yow rek ak moom dafa bëgg mu nëbbu su bëggoon mu feeñ dala koy wan jaxaran bëccëg nga teg ci sa bët yow mi mu ko wan keneen teg ci bëtam mais la la la tax mu wan la ko yow rek loolu baatin la baatin nag lu nëbbu la baatin mooy lu nëbbu léegi nag li nëbbu boo demee ba di ko feeñal loolu nekkatut secret nekkatut lu nëbbu su yàggee euh, suñu borom mën na mën na mën na mën na mën na wàññi loolu mu la doon wan ndax su boobaa yow lim lay wan ci baatin yow dafay mel ne da koy foyee dinañ ci junj bu baax a baax a baax a baax. Euh, waaye daal li ma ci mën a wax mooy. Euh, Ama Baldé jamono bii ñu toll. Euh, am na gàllaaj de. waaw te fi mu toog dëgër na. waaw ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax waaw. Ada guy gi. <laughs> waaw foofu tamit Ada guy gi combat bu doy waar la. Mm-hmm. bu yéeme lool sax. jamono bii ñu toll nii nii nii. man naa ne cinquante cinquante la. ci côté mystique. mystique waaw kenn mu ëppalewu gudd sa morom. Mhm. dara mhm. Euh, nga bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mais euh, aada xale la te xam naa ne fuggu xale bi mhm. lay indi. mais guy gi tamit euh, li ma ciy wax mooy ne def ndànk. na def ndànk bu baax a baax a baax ndax dafa am ci lu mu jugee mais daal fii may weex a yow nii moom ci côté mystique cinquante cinquante la moom kenn dominé gul sa morom. ñu bàyyi ci xel mhm. waaw mhm. guy gi nag mhm. su ma ko jegee woon wala ma am lu ma koy digal dama koy wax na jënd mburu lu ci sarxe doyul mburu lu ci sarxe doyul jurut ay sarax yu rëy de na sarxe mburu rek waaw bu ko defee daal ah, dina baax ci moom trop waaw Liss Ndiago sos <laughs> waaw euh, sos euh, sos day moom daanañ ko supporter sax ñun ndeysaan mm, mm, mm. <laughs> waaye euh, ni ma gisee taxawaayam ci làmb ji mm-hmm. euh, mën naa ne benn tànk la taxawee mm-hmm. ci combat bi mm-hmm. euh, te liis mi ngi ci ñaari tànk kon taxawaayu liis moom moo gën a dëgër waaw te boo xoolee sos côté mystique tamit déedéet liis liis njaago daf ko gën a taxaw ci côté boobu ci combat bi ba nii may wax ak yow nii moo ko gën a taxaw foofu noonu même ba ci côté sarax liis moo ko gën a taxaw waaw ñu bàyyi ci xel waaw moo tax euh, euh, sos mën na am dara ci combat boobu waaye lu may bett lay doon nag waaw lan ngay tàggoo lan ngay wax Sénégal waaw euh, li may tàggoo mooy ku la bëgg a fekk yaakaar naa Kër Moussa waaw ku ñu bëgg a seet si mhm. Euh, man nga ñu seet si ñu ngi Kër Massar euh, mën nga woote tamit ci numéro bi bi daw ci écran bi incha allah boo ci wootee rek di nga ñu jot ñaari numéro yëpp yaakaar naa mu ngi foofu euh, beneen bi ci topp tàggatoo gi ndénkaan lay doon rek ci li jëm ci jaam ñi ñu xam ne adduna bi toll na foo xamante ni kenn ku nekk yaa ngi naan man la man la man la kenn ku nekk it xamoo daanaka fi nga xamante ni fa nga war a teg sa tànk mm-hmm. ndax ñii bu ñuy xëy di dem di ñëw muy dox mm-hmm. amuñu soxla ci ñaanlu mm-hmm. fekk ñi ngi wér tamit amuñu soxla ci hôpital te nit ki bi ngay wér nga war a dem hôpital ñu lay xool bi ngay am jàmm tamit ci nga war a dem ci sëriñ di ñaanlu pour aar sa bopp pour euh, muslu ci cat pour sa toogaay gën a dëgër waaye boo ko deful di dem di ñëw ba jafe-jafe yi xëy ne kandang sa kaw ñu jàppale ci wàllu sëriñ wala sa liggéey yàqu wala say mbir yàqu euh, su boobaa mhm. euh, euh, da nga jug far force ndax da ngay jaaxle mhm. léegi nag jaaxle boobu ngay jaaxle mën na tax doo xàmmee ban sëriñ nga war a ak ban nga war a dem loolu mën na la indil mhm. li nga xamante ni mooy ay jafe-jafe te fekk du ko jar moo tax damay dënk nit ki nga daw ca ba ngay ami tànk olof a ko wax baat bu am solo la daw ba ngay ami tànk soo bàyyee ba yorotoo ay tànk nga bëgg a daw du sotti waaw nit ki jamono bi muy neex ci ngay mën a préparer Euh, sa ëllëg ba du naqari mais mm-hmm. boo bàyyee ba mu naqari mm-hmm. euh, nga bëgg a jug dana mën a nekk waaye dafay xaw a jafe mm-hmm. dafay xaw a jafe te pour nga dajeek tamit ka lay ka lay ka dimb ki la yàlla booleel mu lay dimbale boo deful ndànk du yomb ndax doo demee xel euh, xol ngay demee parce que jaaxle la yóbbu kon dangay ngay jug ci bala ngaa jaaxle loolu lu mat a lu mat a leeral la waaw kay ko defee ñu sant ñëpp rek gërëm ñëpp incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf